xam nga nu ñu def xam nga nu ñu def suñu bakkan lañ ko njëkk jaay suñu bakkan lañ ko njëkk jaay cay sang bi jaral jaral na leen lu leen dara jaralu fa mu war a àgg fa mu war a àgg muy taw muy taw muy ngelaw nit ñay wedd dana fa àgg de yabaate gi ci réew yabaate gi ci réew dafa doy Cheikh Alhaji Umar Cheikh Alhaji Umar Maodo Serigne Babacar Baye Niass mag ñu baax ñu moroomu kenn te léeg-léeg nga gis ay nit te léeg-léeg nga gis ay nit jóge naan jàkk ji kenn du fi wasif loolu yabaate la yabaate la waaye xam nga lu koy faj waaye xam nga lu koy faj ñay wax kenn du fa wasif ñay wax kenn du fa jiitu leen fa fajar jiitu leen fa fajar lal sa malaan yor sa kurus yor sa kurus doon sa xaal ku dugg si ku dugg si di wax kenn du fa wasi xëcc ko mu wasi fa ak yow <laughs> leer soo ko bëggee faw mu jaral la